Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. dama leen ñaan ngeen may ma tuuti rek ma jaale ma jaale suñu suñu benn yaay bi fi jógee voilà un de mes meilleurs potes a perdu sa maman notre maman à nous muy Yaamati Sarr euh, ma koy jaale suma frère boobu noonu suma frère de sang Mamadou bis daayis Thia. di ko jaale seen waa kër Ndow Maas di ko jaale waa gaale bi yëpp di ko jaale waa Jonwaar di ko jaale waa Uldi Saloum bi yëpp mais di ko jaale aussi waa Diamaguène voilà di ñaan yàlla fa mu fa mu jëm tey fa mu nekk tey gënal ko fuuf fi mu jóge moo ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ñépp incha allah voilà donc euh, euh, loolu laa bëggoon a tàmbalee donc gars yi bu ngeen gisee titre live bi maa ngi ko duddee on gagne ou on gagne xam nga coow li bari na man ce que je trouve regrettable et dama ko yax fii mu leer et c'est dommage mais aussi mën nañu amal njëriñ pour ëllëg parce que xam naa ne combat bi yemul fii pour ëllëg ñu gën a defaru parce que je pense que réseaux sociaux yi on est vraiment présent mais trop dispersé et il faut le reconnaître yàgg nañ ko di jooy mi ngi nii li tax mag sañ ko wax nag mooy il n'est jamais trop tard pour bien faire comprendre nga euh, c'est dommage que correction bi war a am entre nous les patriotes yi nga xam dañuy xeex yépp quand je parle de patriote c'est tout ce qui protège le projet ñiy protéger Ousmane Sonko yépp c'est dommage que correction boobu noonu war a am amul je dis pas c'est la faute de voilà mais amul c'est dommage que aussi connexion bi war a am par rapport ak parti bi des na mais nekkuñu foofu nañ ko nañ ci bàyyi xel rek te gën ko defar ngir ëllëg mu gën a ñoŋ quoi mais quelque que soit Alpha dañuy des ci Ousmane Sonko dañuy des ci Ousmane Sonko dañuy des ci Ousmane Sonko ak Macky Sall parce que wax ji wax ji yëpp Ousmane Sonko la ak Macky Sall li tax ma ne on gañ ou on gagne. quelle que soit l'issue quelle que soit l'issue de cette histoire là Ousmane Sonko am na ndam ba pare. quelle que soit l'issue de cette affaire là Pastef am na ci ndam ba pare ak nu mu mënti demee nag Ousmane Sonko am na ci ndam ba pare suñu coow kay suñu problème mooy naka lay demee dama bëgg ñu des ci coow li ñu jàngat ko ñu faram-fàcce ko man ak yéen mun ngeen def seen commentaire man tey dama ñëw pour def suma analyse bopp. parce que nul n'a le monopole du savoir amul kenn ko am sañ-sañ ne lii di xew ni man maa ci war a mën a toog wax on a droit au chapitre parce que Sénégal li ñu yàgg a tàmmal mooy bu coow amee Sénégal wala bu yenn affaire yi amee dafa am ñu war a wax dafa am tellement ñu war a wax que ñun dañuy obligé dañu yàgg teg ci baawu toog leen xaar ñi war a wax ñooy wax mais jusque ñi war a wax ñi bëri ñi war a wax ak ñiy wax mooy ñi nekkoon di wax depuis 1960 mooy ñi fi nekkoon di wax ba Ablaye Wade wàcc mooy ñi fi nekkoon di wax ba Macky Sall toog mooy ñi fi nekkoon di wax ba Macky Sall jël Karim Wade tëj ko ci kaso bi mooy ñi fi nekkoon di wax ba Macky Sall jël Ousmane Sonko dàq ko jël Nafi Ngay ko Nafi Ngom Keïta troxal ko jël Khalifa Sall troxal ko tëj ko mooy ñi nekk di wax tey Macky Sall tiiñaal Ousmane Sonko viol Macky Sall la moo tiiñaal Ousmane Sonko viol mooy ñi nekk di wax mooy bañ ne viol am na ñi fi nekkoon di guddul la meñ naan Ousmane Sonko violé na xale ba te bëri na si ñu koy weddi tey ba ñu koy wax ñu ngi won ak PV yi bëri na ñoo xamante ne nii ba ñuy wax ne Ousmane Sonko violé na ñu ngi ak PV yi am na ñoo xam bi ñu ne Ousmane Sonko violé na rek ne dee na am na ñoo xamante ba Ousmane Sonko génnee dëggal ne dem na fa dañu ne dee na mais dafa am lu ñuy fàtte mooy kii yàlla te gis nga yàlla moom mooy def li muy def ba jël ni dugal ko sa xol dañ dem ba yow Ousmane Sonko en tout cas man personnellement man duma ko dégloo nopp man xol laa koy dégloo duma ko sa dégloo xel parce que wéesu naa ak moom foofu. xol laa koy dëgloo léegi ñu ñëw ci Ousmane Sonko ak Macky Sall ak qu'est-ce qui s'est passé ak lu waral lii tey parce que dafa am lu ne ci kaw lu ñuy gis ku nekk di guerre waaw Pastef nag mën a geer ba dee Macky moom di geer guerre di guerrier guerrier lu mais qu'est-ce qui s'est passé ce qui se passe dans ce pays là c'est que pour une fois Macky Sall jàmmaarloog adversaire boo xam dafa pare pour xeex ak moom c'est déjà une victoire jàmmaarloo bi Ousmane Sonko teg Macky Sall en douze ans du moins depuis 2012 amul ku mos a jàmmaarloog noonu Macky Sall amul xam nga ñun Pastef malheureusement on a tellement de détracteurs que yii may wax nii dëgg la de mais duñu ko wax ci seen télé yi wala ñi ko nam ñi ko nam wax ragal nañ ñu dëkkal leen fu ñu dëkkalul da ngay gis ne coow li ay caaxaan la sax mais ñi ko xam bu ko wax dëgg sax buñ koy wax daf dañuy xool nu ñu koy gérer léegi bu fekkoon fekkoonte nag beneen sens bi la ci ngay xam kan mooy sénégalais boo bëggee yàq. xam nañ ne ay feni kese la de mais ba léegi au nom de je ne quoi xam nga Sénégal ñun. tubaab bi def ñu nax ñun dañu sonn ñun su su ñun ñi jàng ñi jàng Sénégal ñoom ñoo ñu sonal parce que les gens dañuy manipuler les concepts gis nga coow li li ko fi téye yépp Sénégal yépp xam ne ay fen la ñu bàyyi suñu yitte yépp nekk di discuter ci fen ku yeewoo fajar ba ba ngay tëddee xam ne ci fen la violu fen la nga xam ko de ñépp ñu xam ko ñu naan ñu ñu indil ñu texte yi maanaam tëj leen seen xel yi ngeen déglu rek bu leen utiliser seen xel yi et gis ko ñëw doon taag la ñëw toog naan la c'est un citoyen c'est un citoyenne contre un citoyen en fait Sénégal maanaam nit mun na xëy fen ay fenam àdduna yëpp xam ne fen la tiiñal ko nit ñu ne ci pendant une semaine deux semaine àdduna di dox ñun ñu nekk ci loolu ke jiite chef de gang bi nag pukkat bi lexam yu rëy ak biram bu duuf ñëw taxaw naan complot bi man duma ci dara gis nga maaki li ma la waxoon rek moo ci ne sa xol dina dagg de wallaahi sa xol dina dagg parce que da nga nekk ci dëkk bi di ko di ko diriger yor lépp yor lépp mais sa xol du neex doo bëgg doo féex foo toll da ngay mer loolu la yàlla ndattoo te chaque jour mu wax la ko le simple fait Macky nga toog ci palais bi di xalaat de Ousmane Sonko existe au Sénégal xoolal yow titre président nga yor mais sénégal yi Ousmane Sonko mooy seen président moo dee seen xol président de cœur président de cœur Ousmane Sonko la sénégal yi jël seen xol yi jox ko ko boo fi doon des ba deux mil toog fi toog fi soixante-dix ans te jël ñépp sa xol du féex tu ne seras jamais fier de toi jamais yow wàccagoo sax tu es déjà entré yow tu es tu es tu te aux li la dal Ablaye Wade dafa wàcc Abdou Diouf bi mu wàccee bi muy dem aéroport waa PS dañu taxaw di jooy nit ñi di jooy Abdoulaye Wade bi muy dem ba bi muy delsi sax Sénégal yi dañ ko teertu mais yow yaay koo xamante ni nii dañ lay bale dangay ngay di dem ñu lay bale foo teg sa tànk ñu bale ko nga dem foo jub foo jublu rek na fa yiwu yàlla jublu nga dem looloo la nar a dal xam lu tax parce que da nga cuune da nga soxor teg ci ba pare nag baadoo la ñu dénk la mbiru mbooloo nga def ko sa mbiru bopp mais la tax ma ne Ousmane dina gagné ci nii wala ci nële qu'est-ce qui se situation bi qu'est-ce qui se passe là en ce moment lan moo xew Sénégal qu'est-ce qui se passe ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam négociation bi nga am senegal ku xam ni Sénégal bindoo ñun ñi dinañu négocier force Macky il a intérêt ñun ñi négocier man jàngat bi ma am ci génnu Macky sàll bi Macky mënoon na génn si suñu presse bi ah mais Macky dafa dugg ci mbir moo xam daf ci bëgg a génn problème mooy naka la ciy génnee parce que ñaara am Pastef moom dañ ko ne on met notre projet en jeu ñun pare nañ pour dee le dimanche dimanche bi Ousmane Sonko ji ko génn la ne on met le projet en jeu am mbaa ñàkk ça passe ou ça casse mais ça gagne ou ça gagne léegi Macky Sall son problème mooy Ousmane Sonko ni mu nangoo jaay boppam taxaw ci dëgg teg projet bi en jeu ñoom ñëpp ñu taxaw jàkkaarloo moom est-ce que Macky Sall pare na ko malgré mu yor nguur fa différence bi nekk gis nga ñiy coow nii. ñiy coow nii naan dil bi ni mu saltee nii yeggul ci Macky Macky xamu ko ay waxu nanga sa kanang la Macky njëkku fee def yëfu dof Macky fi sañee ay décret Macky fi toog ne gisul décret Macky fi toog ne gisul gisul gisul gisul gisul gisul gisul gisul dañ koy wax sax gisul gisul gisul nu mu affaire affaire ba g IGE euh, e defoon damay fàtte nu mu tuddati Macky fi toog wax fi lu ne màkkee fi toog ngeen baal ma fen fi fen fi fen fi fenaat fi fenate fi fenate fi moo fen nag ñu wax ngeen baal ma ci kàddu yi pour ñu may déglu pas pour moom parce moom moo ñu fen ñun sénégalais yi ñoo ko dénk suñu lépp mu fen ñu mu fen ñu ngeen baal ma ci kàddu yi pour ñi may seetaan quand je vois les gens là dil bi dafa salte ba Macky Sall noo defu ko waa Macky bu ko deful kan moo ko def Macky Sall daf fi mos a def lu jinne nit lu jinne lu jinne jël Khalifa Sall jaay ko doole dóor ko tëj ko génne ko c'est-à-dire yëpp jël armée jël lépp teg yow daal fi nga toog ngay toog rek ak sa lef yu duuf tëjal leen ma kii tëjal leen ma kii defal leen ma kii man loolu kan moo ko mënul loolu Ouzin Keïta sa Ouzin xoolal Pawlish boo ko defoon président bu Sénégal li Macky Sall lan la Macky sàll def lu jinne lu Macky Sall bind ban xel mu sell ban xalaat ban projet lan la Macky innové ci àddina ci Sénégal ba ñu ne Macky warul mun a def dil bi dil bi kay moo may ngoog Macky Sall ne Macky Sall dil bi dil bi bokk ci parce que dil bi niñ ko fisalee baaxul dàmbooj nee na dil bi xaw ma dil bi dafa yàqu ñu ne non dil bi Macky Sall bokk ci lan moo tax Macky Sall bokk ci vous pouvez penser une seule minute que délit bu concerné Ousmane Sonko si Sénégal mu toll fi mu toll dimension bi fi mu toll nii kat moo am maqaama ci biir APR ci nguural Macky Sall kat moo am maqaama def li ñuy def nii ci nguuru Macky Sall cest à il faut il faut ngeen xam ne ay borom xel ngeen di waxal kan moo am maqaama ci nguuru Sénégal Macky nga xam moom kese mooy bum mooy bum mi bañ na ko ba mu toggaloon noonu projet bi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ABC Alioune Badara Cissé ña ko wëroon ñëpp. ku ko ci bëgg a déranger dàq na la jël ay paa yu xobedaas tugal leen fi jël mburoog soow dugal ko ñoo xamante yi nii lu mu wax loolu la ñuy def Macky amul luy xew Sénégal hmm? te Macky takku ci à plus raison lu jëm ci Ousmane Sonko teg nañ seen dil mu ne fii vingt 2024 waa ji mu ngi yéeg ñëpp di ko gis kenn du ko weddi Ousmane Sonko di yéeg comme flèche lépp nag mu teg ko ci waxtaan ak Sénégalais yi ci liggéey ci fighting ak muñ foofu dinaa ci ñëw ci patriote yi di dund lu métti nit ñi yaakaar ne li ko Macky Sall di teg rek la mais nit ñi dañuy fàtte mbir Ousmane Sonko dafa yor njaboot Ousmane Sonko dafa jaay addinaam dafa teg léppam ñu dàq mu jël addinaam yëpp jox ko projet bi. moo tax ay ñi may woo naan ma ay Macky Sall moytul nii man ragaluma Macky Sall ma man dama fi mën a def lu gën a yéeme li Ousmane Sonko sacrifié dama koo mën-mën kan moo fi mën a kan te ku nekk si da nga war a ñaan def lu gën a raw lu foofu laay ñëw pour soññu patriote yi parce que nag ñu faut ngeen comprendre benn affaire dinaa ci ñëw baal ma jeexal ci li ma nekk nii Ousmane Sonko. du li muy dund kenn yëgu ko du Macky sàll rek mi ngi dund leneen lu gën a métti ñun li ñuy gis li ko Macky Sall di teg te feeñ na feeñ feeñaat feeñ na ci coowal lii gis nga patriote ñun li ñu war a yee ci coow Ousmane Sonko beeg Adji saar bi mooy en réalité est-ce qu'on est suffisamment là pour Ousmane Sonko est-ce qu'on a suffisamment été là pour Ousmane Sonko est-ce que fi ñu waroon taxawoo Ousmane Sonko taxawoo nañ ko loolu nag dañ nañ ko lijjanti bu pare mais Macky ñëw na taxaw ne lii occasion la pour ma faagaagal Ousmane Sonko parce que mu ngi yëg comme flèche seulement xam nga lu garaaw ci Ousmane Sonko mooy Macky Sall ba muy jël nguur gi di am nu muy doxale wax naa ko dafa yaakaaroon day am ay prototype politicien wu comme Khalifa comme Idi comme politicien traditionnels yi ñu yàgg xam yi nga xamante ne nii xeex la bu dëgëree ñu négocier fii wala mu dëgër gars yi lijjanti kilifa yu dugg kërëb kërëb jàppal bàyyi des gens yoo xam il ñoom ñoo tëye benn mbooloo di dox ak moom te loolu moom moo def différence bi yépp maanaam gis-gis bi Macky sàll am ci politique xel mi Macky Sall di doxee ci politique Ousmane ko du ko doxee nekkuñu ci même schème de pensée yi en fait lu ñu bokkul nu ñuy xalaatee. ñu ne dañu ko attaqué te ba tey yoonu yàlla ji Macky attaqué wul Ousmane ko pour tilimal deram yoo yoonam newul ci tilimal der man opinion bu laay am tey yoo nam newul ci ay émotion yi ngeen di wax nii ay sénégalais yi mer nañ sénégalais yàgg nañoo mer Macky yàgg na def lu jëpp lu ko sénégalais yi jëppee bu leen yaakaar ne Macky loolu moo koy reculer la ay affaire émotion yi ay ay ay non Ousmane So Macky wutul tilimal Ousmane Sonko Macky lu yàq casier yu du Ousmane Sonko lu ko rey politiquement wala ci dundam lay wutu lu fi tere nekk Ousmane Sonko président de 2024 la makk Sall di wut leneen li ci des yoonam newu ci même ñi naan sax daf ko bëgg a tilimal ok mën na ci nekk mais loolu du objectif final bi objectif final bi mooy éliminer Ousmane Sonko dindi ko il faut que ñu bàyyi loolu suñu xel Macky na naan cure de Ousmane Sonko tilim na wala tilimul yoonam newu ci. parce que yenn a xamul Macky Sall mais Macky xam na ñi mu jàmmaar lool Macky Sall xam na Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak dina ci gannaawam Macky la gën a xam Sénégal Macky bi mu xoolee dossier bi moo la gën a xam ne lii du dem Macky moo gën a xam ne li muy tegal ni Ousmane Sonko coow lay indi mais du dem man recul bi ma am ci affaire bi mooy bëcc song bi ñu song Ousmane Sonko këram sax. c'est fait exprès je pense que loolu ñu bëri nañ ci d'accord ak man le seul objectif principal bi Ousmane Macky am si coow Ousmane Sonko bi mooy yàq ko politiquement mooy tëj ko prison yàq casier judiciaire am fan la bëgg a dem te Ousmane da ko teel a comprendre teel a comprendre moo tax dafa Ousmane dafa dafa ñëw def dimanche toog rek teggi tees viol bi fële tuddul sa Adji Sarr Macky Sall la tudd la tudd Macky Sall la tudd junj ko te Ousmane il a compris si sama xel mu gàtt Macky Sall bu tegee projet pour yàq la politiquement du négocier moo ko ciy génne ñi fi négocier yëpp daf leen daf leen daf leen daf leen éliminer ku fi négocier ak Macky xoolal daf la éliminer man pour man prime abord moo tax Ousmane ne ko mortal combat dañuy xeex naa feex yi toog Sénégal nag. nga xam wala ñenn ñi nga xam yàkkanti woon nañ fu ñu gisee image ñu patam patamee Ousmane Sonko jël ko topp ko ay lam yóbbu ko ñu toogat ci ci rajo yeeg télé yi di mbel mbel di bojo bojo di raconter di n'importe quoi seen xol yi di ngeen ko bës en tout cas ba ba yoonu yàlla ji di ngeen ko bës te du neex je le répète le seul objectif de Macky Sall c'est d'éliminer Ousmane Sonko ay yàq der yooyu gis Ousmane Sonko Macky xam na ne lu munul yàq yàq yàq deram ba rattrapé ko parce que am na gars yi ñu koy wax sondage yi c'est vrai toog naa fii yaa a des mois ma leen parce que c'est le premier parti au senegal kenn jegewu ko ci gars yi le premier parti au Sénégal moo tax xool leen logique bi gis nga Macky Sénégalais yi ñu ngi gën a bëgg Sonko moo la gën a xam ne Sénégalais yi dañuy gën a bëgg Ousmane Sonko c'est le Sénégalais le mieux informé Macky problème am nekkatul foofu. Macky problème am nekkatul ci Ousmane Sonko majoritaire ou pas Macky dafa bëgg a yàq Ousmane Sonko parce que le mec noonu lay fonctionner maintenant man li ma gëm cette fois si mooy yaa a une résistance aider Ousmane Sonko aider leneen loo xam dañ nit da koy dañ da koy yëg parce que kuy am xel ku ne xam ne Ousmane Sonko moom kese toogul fi mu toog Ousmane Sonko am na fi mu tekk li muy réagir am na fi mu teg li muy def te am na lu ànd ak moom lu ñu gis lu ñu gisul. parce que résistance bi ñu sentir ci Ousmane Sonko mosuñ ko sentir fenn Ousmane Sonko jiwu fi kenn lu fi keneen jiwul beneen politicien jiwul kenn lu tax maintenant Ousmane ko am apport boobu na yëpp. te da ngeen seetlu benn affaire bari na Sénégal ay nit ñoo xamante ni nii nguur buy daanu leen yóbbaale nguur gu ñëw ñu ànd ak moom mais nguur buy daanu leen yóbbaale ñu ci bëri ci ñoom soit dañoo maandu ci mbir mi wala def nañ ñu lu bett ñëpp. am na ñoo xam sa kenn mosu doon xalaat ñu défendre Ousmane Sonko ñëw nag défendre ko am na xam du ñu daanu ab nguur Sénégal noonu la ñu mel du ñu daanu ab nguur nguur gu ñëw ñu ànd ak moom mais du ñu daanu ak nguur mais loo ci mënti dégg mooy patriote li leen mën a réconforter xam leen ne vous n'êtes pas seul Ousmane Sonko il n'est pas seul avec les patriotes su may patriote mooy ñu nekk ci parti bi parce que gis nga Ousmane doful te contrairement à ñu bëri Ousmane du cuune bëgg nañ ko def cuune nag ci kanamu Macky Sall mais lu def fàng kenn du ko daaj ils ont beau jël def ko un génie politique Ousmane Sonko mooy papam Macky nga baal ma Ousmane Sonko mooy sa bàyyi ci politique looloy dëgg képp kuy wax honnête ak politicien kulli politicien bu nekk Sénégal at bii moom kenn du jege Ousmane Sonko nañ ko ko nangul loolu na yàlla def. Macky c'est un génie politique c'est le seul président bi nga xamante ne nii Ousmane Sonko ci moom la réussir li mu réussir nii bu doon Ablaye Wade waxu Ousmane Sonko du réussir li mu réussir nii de mais du yomb. Ablaye Wade xel lay demee mais Macky doole lay demee léegi Macky jéem na forcé jaar ci benn prox ndoll prox ndoll bi maanaam gis nga gis nga gis nga gis nga li ñuy wax gis nga li ñuy wax gis nga prétexte bi intéressé wu leen moo tax gars yi di gis dil bu salté Adja Sarr Adji Sarr en réalité prétexte la rek moo tax gaa yi lijjanti wuñ ko benn phase la bu ñu waroon tëb rek ñoom tëb nañ ko ñu ngi ci beneen phase bi mais nag jàpp naa ne Adji mën na nekk seen port de sortie mais seen port de sortie boo xamante Adji Sarr mbokk Adji Sarr laa bu ngeen deful ndànk état bi dina sacrifier Adji pour génn ci coow li bu mu leen bett bu mu leen bett bu mu leen bett parce que nee rek la ci màkk mën a génne ñaar ñaar bu njëkk bi mooy mu forcé bu forcé bi mu forcé ñu xeex boobu moom si incertitude moo ci ne amul waa patriote kenn xamul kuy gañe dama jàpp ne nag parti bu buy xeex ak état te ka xamul kuñ gagné parti politique boobu gagné na déjà li ma wax dégg-dégg la la dama ne force bi mu la Macky am bu njëkk bi mooy force xeex ak Ousmane Sonko mais il mais en jeu <laughs> son mandat mais trois ans yi ko dese il ko gros il met en trois ans yi ko dese et le mandat parce que en perdant ce combat là il peut perdre waxuma la il peut perdre même trois ans yi ko dese c' pas juste mu perdre xeex bi ak Ousmane Sonko il risque de perdre aussi les trois ans qui lui maanaam son mandat est en jeu loolu c' est clair donc force bi loolu la ci nekk force bi aussi ci côté Pastef pour Patriote yeewu mooy xeex bii nii bu ko Macky Sall gagné foo tax xeex gagné mooy projet bi moom yeboo ñun ñëpp ñu noo ñu noppalu donc nag las sukur la Ousmane Sonko nee nañu avant dernier war a dernier donc ku nekk na taxaw xam ne kenn ñaari gañe c'est-à-dire forcément bu amee kenn dina disparaître xeexu Macky Sall ak Ousmane Ousmane moom seen daje seen daje kenn moom dina disparaître mais nag le simple fait ñu toll foofu ak Macky sàll wane na fi Ousmane Sonko toll wane na ne am na ndam lu am ba pare moo tax ma ne Ousmane Sonko on gagne ou on gagne quel que soit alpha on gagne leneen li ci nekk mooy Macky laal na mu dëgër. soit mu xam ne résistance a fii ci kanam booy yi dinañu xeex ak man ba dugg boîte vocale mu xool nu mu soit mu am lu ne si suuf Sénégal ni mu bindoo kilifa yi nangam sangam ñaan léegi nag si ñaari option yooyu noonu moom il faut mu am lu mu ci génne moo tax ma ne Adji bu deful ndànk moom ci boppam état bi dina ko sacrifier pour jaar ci génn ak moom parce que problème bi Macky Sall am mooy pour nga négo pour mu négocier ak Ousmane Sonko man li may wax nii lu ma teg ci téere damay analyser rek. man gëwuma ne Ousmane Sonko kuy toog ak Macky Sall la di xool ni mu ci génne parce que Ousmane li ne ci moom il faut ñu comprendre Ousmane ay kilifa mën nañ ko ñaan mu ne leen amul problème mais lenn moom ko xam Ousmane xam nga ko mooy dina leen ne par contre na nañ ko ñaan te ñu ngi koy ñaan Sénégal noonu la demee mais dana leen wax lu leer amul problème parce que am na yu bëri yu xew Macky génn Ousmane day génn non finalement génnul day xaar kërëb kërëb am génnu Macky Sall bi sax mën nañ ci def taxaw seetlu Macky Sall li tax mu choisir peut dem ci média na man li ma gëm li tax mu dem ci média boo xam média international c'était pour làkk français parce que coowal bii du coowal français coowal olof la coowal sénégalais la lii coowal sénégalais la coowul olof la coowal séeréer joolaa coow loo xam coowal coowal coowal coowal xam nga coowal Sénégal njaay la mais il a préféré dem ci benn média international pour làkk fa français la mu dégg nag ca la ca la mu dégg ci olof bi ak la mu làkk ci français bi nag loolu jar a jàngat la lan la Macky Sall wax dégage naa samay responsabilité du ma ci lenn nañu bàyyi justice mu àtte justice nag ñaar lay àtte mu setal Ousmane Sonko wala mu setal Adji Sarr setal usman Sonko bi ku ne xam na ne mënatul ne kon justice lan lay àtte ci kaawu viol bi précis ça veut dire que Adji Sarr yow boo deful ndànk say mbokk buñ la teelul jàppale yow fa ngay des te bul muusa ka waana mbokk aji saar yi bu leen kenn dugal seen bopp ko ne Macky bu aji saar taxawee intérêt taxaw dina xalaat aji saar moo tax yéen mbokk aji saar yi au fogole séeréer bu yewoo loolu moom na ko teel a dugal seen bopp nguuru Macky Sall bii ñoom Yaxam Mbaye ñoom Birima xat yu bon yii bu leen leeree ne aji saar mii moo ñu ciy génne dañ koy sacrifier dina dee ci kaso bi yii man maa leen ko wax parce que Macky tey lenn rek la mën a négocier ak Ousmane Sonko kilifa yi ñaan leen Macky dégager ay responsabilités dem procès ñu seetal Ousmane Sonko Ousmane dem mu dem loolu Ousmane du ko ko may dina ko may benn parti bi am na boo xam du ko may parce que dina ko ne ah déet man bu ma demee lan lay wax waa kër ga Ousmane moo ñu ne du dil du compromis suñu gannaaw lan lay teg suñu loxo moo tax Ousmane dina ko ne na ngeen yeggali enquête bi. nañu jàpp ñu war a jàpp leneen li may répété waat mooy au cas où Macky bëgg a maintenir nguuram dina sacrifier Adji Sarr war a mu sacrifier booy mbay boobu sacrifier avocat bi sacrifier médecin bi sacrifier ñam war a sacrifier il faut mu leer Macky option yooyu la xeex forcé jàpp Ousmane tëj ko waaye tëj bi nag du jóge ci viol bi tëj bi yi ñuy layal nga amee yi lay jóge tëj ko prison boobu ça va très compliqué parce que boobu sans gagne sans perte la muy Pastef pour muy Pastef di Macky bu ma xeexee bu waa ji gañee je suis foutu trois ans yi ma dese sax ñàkk naa ko waa Pastef aussi xam nañ kii risque bu gros bu ñu jekkoo bu gañee xeex bi a jël Ousmane ko ci kaso bi lay dee yàq casier judiciaire bi bu dem benn élection looloo fi ne boobu nag mooy last cool bi léegi avant ñoo yegg si foofu mën nañ ko lijjanti ni ñu koy lijjanti mooy soit Macky sacrifier Adji Sarr wala mu sacrifier ay ñoñam te buy sacrifier Adji Sarr sax du fi bàyyi ay ñoñam te loolu pour mu am loolu li Ousmane ko mën a nangu la ok complot la complot la yow ok mais nañu jàpp ay nit nañu ne Ousmane deful dara ñu jàpp ay nit ne kii moo def Ousmane il faut qu'il lave son honneur il faut qu'il mette quelque chose ci loxo patriote léegi nag ñun naka lañu war a préparer woo connaissant Macky Sall léegi dañuy def parcours Macky Sall li ci jiitu mooy Macky mosul sacrifier ñooñam mais aussi Macky mosul jàkkaarloog Ousmane Sonko situation boo xam dafa war a sacrifier comme ni mu demee nii mais Macky du kuy sacrifier ay ñooñam bariwul li mu koy def. c'est-à-dire que dafa forcer tellement que lépp pour lu ndaw lu mu defal faveur rek Ousmane ko def ciy am dam dafay feeñ parce que problème bi Macky Sall am mooy dafa tàmmal sénégalais yi man su ma jàppee day dagg <laughs> waaye bii dina tàgg jër sa loxo yi wallaahi di nga xam de booy joolaa bi nga ko seekal nii dina la wexaat ak patriote yi dootoo ko def parce que yi dañuy naan Macky mosul am occasion bi aussi pour jàpp Ousmane Sonko waaye patriote yi aussi am nañ occasion de combat bi moom ak lu la ci mënti wax sans gagne sans mais biir na ma ni màkk ci entourage am <laughs> coow bari na de léegi nag lenn moom moo fi nekk bu ñu naxante gars yi ngi waxtaan ñu ngi négocier mais li ma bëgg patriote yi comprendre mooy il faut ñu préparer wu ci lenn nga li ñu naan kii peut le plus peut le moins nañu préparer xeex parce que gis nga ci biir waxtaan bii Macky Sall ci biir waxtaan bi xam nga genre problème yi dafay évoluer lu ne mën na feeñ tey suba gannaaw suba ci diggante bii parce que il faut ñu comprendre benn affaire Macky il n'est pas de bonne foi que pour kilifa yi ni pour partem ni pour sénégalais yi et il faut ñu comprendre ñun aussi lenn mën na nekk suñu avantage nekk suñu faiblesse mooy Ousmane Sonko dafa bëgg teg tànkam ci dëgg. xam nga booy dox ci dëgg te bëgg sax ci dëgg bi yàlla rek moo la mën a aar surtout boo ko seekk ak ay naafiq ñoo xam ñoom wax dëgg wala def fenn wala yooyu du déranger wu leen ñoom nañu am dam rek c'est très compliqué moo tax su may dégg gars yi di sikki sàkk Ousmane Sonko man politique am fitam ak fulaam ak xelam par rapport ak gars yi yow koo xamante ne nii moom lu ko ngay xeex ak koo xam lu ko neex mën na utiliser mën na def lu ko neex yow ñu ne la yow doo saaga doo jël ngànnaay doo def dara yow sa baaraam bii rek nga yor yow joxoñ rek ngay xeexe yow joxoñ rek ngay xeexe waa ci moom mën na jël jaasi mën na jël oto mën na jël basoka mën na def boo dee sax mu dem jël ay mbokkam bu lu ko waa ji mën na xeexe lu ko ne mais yow benn nii rek ngay mën a xeexe te pourtant waa ji yaa ngi ko tëf gars yi di ma wax ay waxu génie politique <laughs> ba fa fi Ousmane Sonko lu tax soxor bon bëgguñu dégg la jaay gudd xel bu fi nekk ay analyse yu extraordinaire moo tax yenn ñi deful ndànk coow lu bari nii gaa yi wax ni ñu am ci am xel noppi nañ ñi ci nekk dëgg ñu ngi wax mais képp kuy wax di waxu Macky buy dem du la fi bàyyi te ndeysaan yàlla li mu suturaalee Ousmane Sonko mooy léegi ay noonam ñoo koy may ay nit Aïssatou Diop Fall mooy gën a yuuxoo ci Ousmane Sonko Sénégalais yi di ko gën a bëgg Maître El Hadj Diouf mooy gën a yuuxoo ci Ousmane Sonko Sénégalais yi di ko gën a bëgg xaw ma kañ ngeen di comprendre affaire boobu noonu Ousmane Sonko wut leen leneen. qu'on nous qu'on arrête de nous parler politique et qu'on se respecte tey tey Ousmane Sonko il gañ wala il gagne te même bu ñu xootalee sax ba ci biir ñu forcer ñu xeex ngeen baal mu dugg ci tuuti. Macky jekku Ousmane Sonko après incertitude après Macky qu'est-ce que tu vas faire de ces de ces milliers de ces millions de patriotes qu'est-ce que tu vas faire d'eux yéen waa APR yéen ñu nekk nii di rey seen Ousmane Sonko qu'est-ce que vous allez faire de tous ces jeunes de cette vague patriotique qui arrive vague patriotique bii ñëw nii bu ngeen liquider Ousmane Sonko qu'est-ce que vous allez en faire c'est des Sénégalais c'est pas des Gambiens vous allez en faire quoi ma mooy li ma jàpp ne mooy stratégie xam naa gars yi dinañ ne stratégie kenn du ko wax ci live fii laa koy waxee làqatu wuñu ñoom bu ñu bëggee sax ñun ñu may leen stratégie xam nga sénégalais yi dañ leen di garaaw garaawloo état dañu di titre ci état l' état est fort si Macky veut prendre Ousmane Sonko il va le ok mën na ko jëli de mais après du sedd ci moom mu téye ko mu ñàkk ko téye du sedd ci moom ay gars yi toog la naan la l' kërëb fii lan mooy état état quoi lan lépp état bi gën a puissant keroog la ay population dugg ci biir capitole bi dugg fa on me dira que bu démocrate lan mooy état dañ lay jaay état quoi. mel ni Abdou Diouf ko jëlee ko ci réew mi Abdoulaye war yor état Macky Sall mu ko jëlee ko ci réew mi ngeen Sall état xaw ma lan Macky kërëb kërëb lan la lan lu fi Macky luy état luy état luy état. luy état bu Sénégal lu dul Macky Sall Boun Abdallah Dionne ñoom Yakham Mbaye ñoom Abdou Latif Coulibaly qu'est-ce qu'ils sont Abdou Latif Coulibaly fu Abdou Latif Coulibaly fuu ñun ba ma dëkk mënu faa gagné Yakham amul base politique c'est quoi l'état vous faites allusion à notre armée à la police parce que vous pensez que <laughs> et je vous le dis hein vous pensez il va faire faire à la à lu ñu bëggul def xeex bi dafa am limite xeex bi dafa am limite xamee fan la amee limite fu lay waxee stratégie amul stratégie bu jinne génn leen amul beneen stratégie jinne amul leneen génn leen ngeen taxaw ci gannaaw Ousmane Sonko génn leen point loolay stratégie bi génn leen allez-y avec vos familles génn leen génn leen kër yi profité ci leen di ngeen xeex lépp ku doon laajte faali ngoyeen yi patriotes yi ñoo fi ne ak Pastef ànd ak Ousmane Sonko ak sénégalais yi nga xam dañu doyal ci Macky Sall ku wut fu mu fanaan ak ku wut ku ko wéttali nu ñu daje génn leen loolay stratégie bi man loolay sumay stratégie génn leen dem leen wuyu ji bu ngeen dee sans gars yi laxas leen yóbbu ci kaso bi bu ngeen dee deux gars yi laxas leen génn ci bu ngeen dee cent mille amul armée buy résister amul armée sax bu koy nangu parce que parmi nos généraux y a des patriotes parmi nos capitaines y a des patriotes parmi nos magistrats y a des patriotes dans l'administration y a des patriotes au palais y a des patriotes même dans l'APR y a des génn leen c'est le seul mot d'ordre man loolu Ousmane Sadik génn bu ñu wootee samedi ay ah, yàlla bu Ousmane ko wootee nag génn leen ñaar bu Ousmane ko wootee génn leen bu ñu ko tegee loxo bu leen xaar mu woote génn leen bu ngeen génn ndoowee ndam lu cest képp koo xam da nga nam ma defetu Macky Sall génnal c'est simple képp ko nam ma defetu Macky Sall génnal amul armée ci àddina Macky bu woon bu woon waa Gambie boo euh, Baro xaw ma boobu woo mbaaloo xaritam boobu woo ñëpp Cap Vert woo gars yi dëkk yi nekk fii woo woo ñëpp na woo woo armée yëpp armée ci armée bi mu ñëw mu amul armée buy résister devant un peuple te boobu sax ay gën a yomb xam nga gën a doy li ci ne xam nga gën a doy bi dafay régler ñaari problème Macky non seulement day reculer mais violence du am boo déggee violence am na policiers dañu jàkkaarloog cent jeunes mais ba ñu jàkkaarloog cent mille jeunes bal bu tàkk c'est la seule stratégie donc képp koo xamante ni da nga bëgg Ousmane Sonko parce que patriote la nit ku dëggu la nit ku baax nit ku jub la nit bëgg Sénégal la ku pour sacrifier la képp koo xam da nga bëgg Ousmane Sonko parce que c'est un Sénégalais koo xam da nga bëgg Ousmane Sonko parce que ku fonk diine la ku fonk yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la te wane na ko ba mu ko waree wone donte defu ko pour wu wane na ko ba mu ko waree wane dont defu ko pour wanewu archive yaa ngi fi képp koo xamante ne nii héritage Cheikh Ahmadou Bamba maam El Hadji Malick maam Baye Niass maam Limaamu nga xam dañu xeex ba am li ñu am dénkuñu ko Ousmane Sonko ñëw teg foofu tànkam ndaw loole trop nag wane respect consideration ak bëgg bi mu am ci ñoom ba nekk la seul candidat bi leen jël def leen institution dans son programme gars yi waxuñu wax ji de ak ñoo bon ndax Ousmane Sonko bëggul tarixa yi bëggul kilifa yi ak a ñoo mën a fen Ousmane Sonko c'est le seul candidat bi jël suñu kilifa yi bu jël nitu diine yi bu jël église bi tarixa yi ak ji doxul ko ci programme am def leen institution da ngeen di bokk ci ñuy décider ñuy wax. kooku la ñu bëgg a faagaalgal tey génn leen ngeen xeexal diine ji xeexal dund bu cher bi xeexal suuf si ñuy dóor di ko sàcc xeexal yéen ñi am ay prisonniers màkk si leen tooxal xeexal ñi nga xam dañu leen dënc prisonnier te àtte leen xeexal injustice ñi nga xam li li ñu defal Bougazelli muy sénégalais comme ñun ñëpp juddoo ci kër yi màggee ci kër yi nekk sénégalais comme ñun ñu may ko maqaama ci dëkk boo xam ne ñëpp a yem droit mu def ay toj-toj ñu génnee ko muy dox di dajeeg ay ñoo xam seen bàyyi ñu ngi ci prison yi seen nijaay yi ñu ngi ci prison yi seen i jëkkër ñu ngi ci prison yi seen i jabar ñu ngi ci prison yi seen i doom ñu ngi ci prison yi moom mu ne man du ma dugg prison parce que maay Bougazelli parce que Macky ñi loolu naqari génn leen ñu toog xëy gis Aliou Sall nga xam ba mu nekkee ci ay tuuxulu ne moom fa mu dëkk jóguñu jàppalu leen ko mosu leen dégg ñu ne waa Fatick jóg nañ def leen lii kër kër ndax Aliou Sall mu migré dem géejawaay Macky Sall euh, euh, nu mu tuddati euh, Mali Gakou lal ko tapis rouge mu jël géejawaay mu jël suñu alalu Sénégal bi dóor ko Macky protégé ko mook Franck Timis avec l'aide de maître El Hadj Diouf copain Dame Mbodj ñëpp xam ne lu dëgg c'est l'occasion c'est le moment gis nga Ousmane Sonko dafa polariser l'énergie de tout une jeunesse de tout un peuple mais tous les mécontentements gis nga Cheikh Yérim Seck ba ngay wax xamoo sax li la wax loo ba ngay naan Ousmane Sonko dina dajale ci wetam mécontentement yi ci dëkk bi yëpp waxoo ko de c'est un constat que t'as fait c'est pas une analyse c'est un constat c'est une réalité loolu moo am dëgg tey te loolu moo leen ragal loolu moo tax xamul leen qu'est-ce qui va se passer loolu moo tax Macky songul parce que ragal la xamul lan lay daj Macky xam na nan la patriote di réagir mais xamul nan la sénégalais yi di réagir parce que daf leen toroxal il a fait beaucoup de parce qu'il sait que les parents des en là qui ont péri en mer xale yi dee ci géej gi xamul ñooñu nan la ñuy réagir xamul population bu Ndengeleer nan la ñuy réagir xamul population bu Mbaan nan la ñuy réagir xamu ko xamul sax population bu Fatick nan la ñuy réagir te wallahi boo laalee Ousmane Sonko dootoo ko def kon nañu préparer pour le combat ultime parce que loolu rek la am dugg foofu wala bàyyi Ousmane Sonko te nag buy bàyyi Ousmane Sonko encore une fois je le donc yéen mbokk Adji Sarr yéen ñi yaakaar ne état seen xarit la yenn ñi état noppiloo xëy na sax noppiloowu leen xëy na sax yéen ngi des ak seen ngor mais dafa leen di yokk soññu rek waaw di seen mbokk ñoomeen ko comme yéen restez digne te xam ne état amul xarit amul mbokk ay intérêt rek la xam surtout nag état boobu bu ko Macky Sall incarné dans cette histoire là Adji Sarr Adji Sarr munu ci gañe benn yoon quel que si mu munu ci gañe benn yoon parce que même Adji Sarr bu Macky Sall demee ak Ousmane ci terrain politique bi Ousmane Sonko nee na baal na ko ah gaa loolu dafa nekk benn message bu fort ci ngeen xool ci bu baax mais Adji génnu ci parce que dafa fen dafa tuumaal ay nit dafa tuumaal ay nit donc Adji Sarr munu ci génn benn yoon munu ci am ndam. Macky Sall mënu ci am benn ndam parce que ndam li jeex na c'est-à-dire match bu jeex la ñu koy nettali waaw mu ngi mel ni match Ligue des champions rek nga dem ale ñu dóor la 10-0 gars yi xam nañ ne retour bi dina am mais xam nañ ndam am na ba pare. Macky tu perdu contre Ousmane Sonko c'est fini foo la en prison tue-le tu perdu parce que grâce à Ousmane Sonko tey les Sénégalais t'ont vomi. jaratul ñuy xaar élection pour xam ne Ousmane Sonko moo dee ci xolu Sénégalais yi game over coow li jeex na dangeen ngeen rus gàcce moo leen di rey bu doon duñu ay patriotes yu gëm ne affaire bi du Ousmane Sonko projet la pour le Sénégal dañuy naan bu fa yemoon dañuy def ni sa copain Youssou Ndour defoon bu fa yemoon sax mu neex mais ndeysaan patriote xeexalu nit du Ousmane Sonko c'est un projet l'aboutissement d'un projet bu doon ci Ousmane Sonko rek la ñu yem neex na kon dañuy ne jeex na dañuy toog bala nee nga jël ko tëj ko sax ñu toog di ko yóbbul aj di ko yóbbul ay sandwich fii laay jóge fii France Bordeaux waaw toggal ko yu baax yóbbul ko ko bu doon ci Ousmane Sonko rek jël ko tëj ko noo xam def ko mais bu ma fekk ne du Ousmane Sonko c'est un projet te yéen loolu ngeen xamul munu leen comprendre. Patrick xamu leen li muy saf xamu leen lu Ousmane Sonko yee ci Sénégalais yi da ngeen nekkoon ci ci nguur du nguur fekk am na luy xew da ngeen ko dàq fàtte ko yàlla dàq ko def ko député jaarale ko Free for Rest 37000 Sénégalais yi votel ko ngeen koy xas ci télé yi fekk mooy seen musiba yàlla dàq ko rek ne ko booy toogal fii ngeen di dof dof lu xamu leen sax lu leen ko jaalale loo patriote yi tout le monde se demande lan moo jaalale loo Ousmane ngeen booy bi rek muy dox di ñëw seen kaw rek xam ne du ngeen dara tey waa ji ñëw rek uuf leen yéen ñépp toog jàkkaarloog yéen nag te li gën a neex ci Ousmane Sonko booy xeex ak moom yërëm naa la parce que waa ji du may dara parce que ñun ñu féetee Ousmane Sonko ñoo dul gis naqar bi <laughs> mais gis nga Ousmane Sonko bu génnee waa APR boo leen gisee ah <laughs> dañuy tàq non yërëm naa Sénégal tey bii ku bëggul Ousmane Sonko ku ànd ak Ousmane non yërëm naa la dafa métti c'est dur métti de te waa ji moom du may dara ay noonam bu génnee day rey day sourire day mel ne dara xew foo jaar mu may na sourire bi nga bëgg mu bañ mu may la sourire man moo tax sax buñ ma ne ay Adji Sarr sax Ousmane Sonko bu sourire xale yëpp daanu xam naa li ma koy tuddi ne xale yëpp a ngi daanu Ousmane Sonko lu mu namm ci jigéen dama ay baal lan la namm ci jigéen Adji nga xam man mii sax bëgguma yàlla baax ay ngi dégg gars yi naan bàyyi leen Adji Sarr bu leen ko wax lii bu leen ko wax lii Adji Sarr dox ànd ak ay nit nekk magum jëmm dem porte bi leen ngeen ne bu leen ko wax dara c'est que Sénégal yi dañuy waa Adji Sarr ñëw ànd ak xelam lekk xaalisam lekk dem Cheikh Mamou lekk fa ay reeram yu baax ñun defuñ ko dara mu fekk ñu ñuy ne mekk tuut bëgg a changer Sénégal mu ñëw ñu lu mu ñu teg ngeen bëgg ñu sonal naan bàyyi leen leen wax lii Adji Sarr dañ koy wax ay a wax dañ ko bàyyi leen yooyu quoi yooyu di débat bi Adji Sarr li mu am bëri ñaata patriote ngay gis fii ci réseaux sociaux yi ñu naan libéré Adji Sarr di wax ci moom mais qu'est-ce que vous voulez léegi da ngeen bëgg ñu nekk ay naafeq bëgg man dinaa toog fi di tàgg Adji Sarr sama mbokk la ñoomin que la comme man ñoo bokk île du bi mais li mu def defawul baaxul te man toog naa fii ne askanu ñoomin ka ñu noonu dem leen dem leen ngeen xool leen askanoo ñu noonu moo tax ñu ngi respecté seen i dignité kenn déggagu leen nag kon kenn mënul xam fu ñu féete nañu am présomption d'innocence présomption de bonne foi ci ñoom te xam ne am na ñu mu doon doon tey coow li jeex na de am na paa yi mu doon doon tey paam coow li jeex na de mais bàyyi leen naan ñu Adji Sarr ne ci réseaux yi ay Salim am si réseaux yu bëri na de ay bu ko seet ko nag waa APR ba dumburu sow boobu fekk fa jaas yi daggati ko may leen ñu jàmm dans cette affaire là fii s'il y a ay victimes ñun ñooy les victimes Sénégal yi nañu bàyyi naa féq patriote yi da ngeen leen tooñ patriote yi ba deret manqué ci hôpitaux yi dañoo dem may di deret ba nawet bi ñëwee coronavirus bi ñëw dañoo yóbbu ñu béy bi mbënd bi mbënd bi ñëwee dañoo xolal dañoo fu ne foo dem ci Sénégal patriote yaa ngi génn di yàlla seen cent franc di xool nu ñu gérer situation bi ba ci éducation bi Ousmane Sonko wax ne enseignants yi dem leen jàngale ji ba ci mbënn mi initiative yu bëri yu am ci réseau sociaux yi pour wax Macky Sall xale yaa ngay dee ci géej gi de patriote yi ñoo ko yëkkati ñu fekk ñu ñu nekk patriote yi dañuy woote meeting gars yi toog def chaise tranquille civilisé mosuñu yàq lu dul defar ñu fekk ñu toññ ñu fekk ñu toññ ñu ñunoo bu leen ko méttitlu lan ngeen bëgg ñun c'est que lan la ñun ñi bëgg ñu nañu ñun bu ñu ko méttitlu ay terminer benn affaire gis naa laa fiilaa bi wax ki ñëwoon TFM di fa def ay tottu jami di làq ak malal cette fii bi nga xam France fii la nekkoon Gabriel ñun xam nañ la fii nga nekkoon yow xamoo dara ay Sénégal moo tax ba nga demee toog ci plateau naan xale bu am vingt ans école ma ne la xamoo réalité Sénégal c'est que yéen comprendre leen il faut ngeen comprendre ngeen yii yay Gabriel moom yow Gabriel xaw ma nan laa fii laa xaw ma lan des femmes gënoo fi jàng kenn gënoo fi dégg tubaab kenn parce que dégg tubaab lu te nag nekk France juddoo fi màggee fi am làq bi loolu loolu du ndam am na ay France laa ne da ngay toog ak français français munul tey da ngay toog a français mënul téye cla mënul téye clavier bu dégg tubaab juddoo ci dëkk bi am 30 ans lu ñuy taale ordinateur ñu ngi fii fees fi en pagaille dégg tubaab ba dee mais nekk ay këx jànguñu jonguñu xamuñu tous ñu ñun fi ñu ngi fii c'est des français bon temps xamuñ sax luy am na français yoo xam téléphone da ñëw di leen woon ay dara ci te xamuñ ci dara c'est que langue la rek ça il faut ngeen comprendre loolu làkk nii kenn du bu mu leen kenn naxatu ci làkk fii la ne woon France xamul li xew Sénégal sénégalais yi na ngeen xam loolu xamul li xew Sénégal benn dof la bu dee ñëw fekk benn ñun ñuy toog mu ne bërët ci biir bool bi daanu ci ñu ne lan la gis ngeen ko na mu def ko roog TFM toog na jóg na wañaaru na c'est-à-dire lu ne def na ko comprendre xamul li xew dafa ñu war a ñëw ci bool bi moom dégg nañu c'est-à-dire c'est regrettable en fait et loolu noonu ñun ñun kese ñun ñoo ko war a wax les femmes là yi nañ leen stoppé quoi parce que ñoom ñu ngi saltel xeex bu am solo mooy xeex yi nga xam jigéen ñi yàgg nañ ko xeex Sénégal moo ne gis nga Gabriel xamal sa bopp dégg naa ngeen di wax fii Milan fii benn patrouille menacé wu fi kenn benn patriote menacé wu fi kenn amuñuy temps wu menacé yi ba ñu tàmbalee ba tey Macky Sall moo mës a nekk suñu adversaire Macky Sall sax ñun menacé wuñ ko mais ku ci bëgg a am bës rek Ousmane Sonko moo ma xeelu Ousmane Sonko moo ma violé Ousmane Sonko moo ma dóor lii xale yi passif ñoo saaga xale yi ku ci bëgg buzz rek xale yi passif ñoo ma def lii parce que buzz bi si ñun la féete. non dafa day waar. si ñun kan la ñuy dégg lu neex nag kan la ñuy dégg Ousmane Sonko yaa rafet yaa taaru. te balaa ngeen ko doon dégg nag Ousmane Sonko falu ki ne laa mooy jiitu ci palais Fatou Guewel topp ci Alaaji Mansour mbay moom mu doon vacciné wu topp ci maamu Ousmane Sonko yi ngeen musul bu leen tari de bu leen xool 2024 bu dee janvier la le premier janvier Ousmane Sonko président ngeen xam sénégalais yi nu ñu mel le 2 janvier ngeen xam maamu Ousmane Sonko yëpp. xam-xam baaxu Ousmane Sonko yëpp reeju neex jeeg jullite geeg yëpp ngeen koy door a dégg nag ci ngeen xam luy Sénégal nag danañ ko tagga tagga tagga tagga tagg Bécaye Mbaye dina jaar fii pa boobu nekkoon RTS jaar fii Alaaji Mansour jaar fee ki ne la am jaar fa ca des nga dégg kii géwélu kii géwélu Basiru Diomaay ba ñëpp ñoom ñëppay am géwél ñoom ñëpp ku nekk am géwél kii di tagg jaar fii kii di tagg jaar na le te ñun ñu koy wax te ñu ngi itam ay dem ay chien de garde ak yu kenn xamul gars yi maa ngi leen bëggee affaire bi dara du xew Ousmane Sonko jàmm rek lay am parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ di xam ne Ousmane ay góor la ko sekkal xeex génn Ousmane daal wootee génn ñëpp génn buñ ko laalee génn ku toog sa kër moom dese nga do bu kenn toog ci kër yi génn mooy benn stratégie la am génn daal mooy stratégie bi génn dem mbooloo bu rëy taxaw na na ko noo xam def ñu. di rafet di di rafetlu seen teewaay di masawu ñi nga xamante ni peut-être jàpp nañ leen te ñun ñi comprendre ne bu leen affaiblir gis nga ay Guy Marius Sagna jàpp nii ay gars yi jàpp nii yàqul dara ci combat bi Guy Marius Sagna benn nit la bu ñu génnoon guur Marius benn place lay taxaw bu ko cam bu caméra tey boo tegg woon guur mbooloo bi war a génn bu caméra yi ne tey boo génne woon Guy Marius kenn du ko gis du feeñ nañu ko gisee noonu ku nekk na jàpp ne place Guy Marius ba ñu rocc man maa fa war a dem toogi te nañu comprendre que ne benn Guy Marius Sagna mën nañ leen jàpp ñu doon ñaar ñu jàpp leen ñu doon ñett ñu jàpp leen ñu doon cent jàpp leen waaye junni junni junni Guy Marius Sagna moom am mënuñu leen def ci ñoom dara jàmm rek ay am loolu daal mooy indi jàmm mooy indi ndamal Ousmane Sonko képp koo xam soppee Ousmane Sonko nga bëgg ma Ousmane Sonko bëgg nga Sénégal bëgg nga Sénégal soppi loolu moom moo war a nekk sa taxawaay taxaw temm rek jàkkaarloo gars leen xool génn rek ñëpp génn maire yeeg paa yeeg xale yeeg tout le génn ne yaa ngi nii nag noo xam def ñu ba xam nag fu mu jëm ak ñun ak la xam ñu duuf maa leen di ziar di leen bëggee restons mobilisés restons focus sur le projet taxaw temm nag ngir protéger Ousmane sonk daara du ko daal te ñu ne ci te ñu ne fi incha yaa ngeen jëf gaay yi. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.